Avant de commencer, on vous rappelle que le Sénégal. Le Sénégal est champion d'Afrique Avec. L'étoile sur le maillot 21 campagne, deuxième session, gardez-vous, demi tour droit, classe 2015. Magal gi neex na. yow lay laaj. Macky baa lekk nga si ginaar yi. bu baax baax. ñam nga ci soos bu baax baax. lekk nga yi. bu baax baax. mos nga Pombi. bu baax baax. kon daal yëngal si lu tax màggal gi duñ togg mbaxalu Saloum. mais fii duñ ko lekk. dégg naa yow noonu nga bëgg soom bi. non loolu amul. xale lekk barewul. barewul. donc dégg naa noonu la mën a lekk. consommateur bu mag la. ñi dem Touba di wër di lekk nag lu siy pexe. danañ ci def daan ñu la baa yaa ngi waajal gàmmu gi. bu baax baax. Sonko màggal gi dégg naa neex na de. weesu na foofu. doo ma yónnee si ginaar yi. amu fi. waaye yónnee ma si pomme amu fi. léegi yónnee ma si banaana yi. amu fi. moytuwul fër foofu rek bu rey si bopp si ginaar yi. loolu reyul nit. dégg naa waa après